alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursaliin sayidi al awwaliina wal aaxiriin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu rahmatan lil aalamiin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin amma bacd salaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci seen podcast bii di al adab ci seen rajo Risaala ngeen mën ñoo fekk ci réseaux sociaux yi lu ci mel ne Instagram lu ci mel ne Twitter lu ci mel ne tamit euh, YouTube ci Risaala TV ngeen mën a suivre yi nga xam ne ne yeneen pod podcast wala podcast bi série bi nga xam ne moom nekk nañ nekk di def nii ngeen mën koo suivre ci réseau sociaux yooyu. naka noonu tamit képp koo xam ne ne bëgg nga gën a xóotal émission yi nga xam moom la ñuy am wala jàng bi nga xam ne moom la ñuy amal. Euh, mu nekk jàng bu gën a sérieux mën nga inscrit ci suñu école bii di Mutadaarisuuna la xam ne moom nañuy jàngale mu am en ligne naka noonu tamit présentiel bu loolu weesoo jotoon nañ gis ci série yi nga xam moom nañ jot jàng teggin yi nga xam ne nit ki moom la war a doxalee ak suñu boroom tabaraka wa taala deuxième point ñu gisoon teggin yi nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak ay moroomu nitam du ci mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko ba pare jotaay bi weesu gis jotoon nañ gis dëkkaale yi moom mooy yéen euh, ay waajuram naka noonu tamit ñi nga xam ne ne ñoo ko gën a jege lu ci mel ne ay mbokkam incha allah tey nag dañuy fas yéene gis li nga xam ne ne moom mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp ci ñooñu parce que ñi la gën a jege mooy say waajur ak say mbokk ñan ñoo la gën a jege ñu la gën a jege moom mooy say say dëkkandoo te yonent bi alayhi salaatu dafa wax ci xadiis boo xam ne ne jëlee nañ ko ci imam buxaari ak imam muslim mu wax ne ma zaala jibrilu yusiini bi jaari mu ne jibril alayhi salaam deñul ci ma ci ma dénk li nga xam ne moom mooy dëkkandoo ba keroog may foog ne sax ne may njortu ne xanaa dëkkandoo dañ koy donn donc loolu lu muy wane moom mooy ne dëkkandoo dafa nekk loo xam ne suñu jamono ji dañ ko oyofal lool waaye nag boo xoolee lu lislaam diisal la ak li nga xam ne moom mooy ak dëkkandoo lu jar a bàyyi xel la lu jar a moytu la ndax nit ki bu fekkee day dox ci suuf ci kaw suuf dafa war a fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne ay gàkk-gàkkal la yoo xam ne da koy jural ay problème ëllëg da ko war a moytu te bokk na ci àqu dëkkandoo moo tax nit ki bu fekkee dafa nekk ak ay dëkkandoom dafa war a fexe ba nga xam ne ne du leen lor dafa war a fexe ba nga xam ne ne day dëkkaale ak ñoom dëkkaale bu rafet fexe ba nga xam ne ne lépp luy teggin sa diggante ak ñoom nga respecté ko bokk na ci bul jël ay mbalit di ko tuur ci ci ci ci ci buntu këram naka noonu tamit parce que dañ koy gis ñoo xam ne ñuy jël seen bari tuur ko ci buntu këru jàmbur au lieu que ñu teg ko seen buntu kër déedéet ci buntu kër voisin bi la koy dem tegi naka noonu tamit moytu lépp loo xam ne ne ay tapage sonore la tapage nocturne loolu yëpp dérangement yooyu nga fexe ba nga xam ne ne du jóge sa biir kër du jóge ci yow di jëm ci ñoom lépp luy lor kon ci lu aju ci seen jëmm tamit nga moytu ko naka noonu tamit seen làmmiñ bul nekk di leen jéem xamal pour après di leen nettalil déedéet loolu waroo ko def parce que li la war sa diggante ak ñoom moom mooy respect ak dëkkaale bu rafet teggin bi lu ci ëpp mu mooy lan mooy boo leen romb ngeen nuyonte ngeen waxtaan ci li ngeen mën a waxtaan et cetera boo leen amee benn mbir ci koñ bi boo leen mën a gérendoo ngeen gérendoo ko noonu ngeen loolu mooy àq dëkkandoo naka noonu tamit boo gisee benn mbir boo xam ne moo ngi raam di jëm ci kër gi nga fexe ba nga xam ne même bu fekkee fekk ko fa nga fexe ba da ngeen koy fànkal waaye doo leen seetaan ba après mu ñëwee nga nekk benn spectateur boo xam ne dañoo ñëw taxoon naa pourtant gisoon naa ko mais damaa maanu loolu du maanute loolu du maanute donc dëkkandoo li ci war loolu la naka noonu tamit moo tax nga gis ne comme dëkkandoo dañ ko war a teral comme dëkkandoo dañ ko war a wormaal moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal fal fal yukrim jaarahu mu ne képp koo xam ne ne gëm nga yàlla gëm bis pénc na ngay teral yi nga xam ne moom mooy sa sa dëkkandoo nga teral leen ci nan ci li may wax nii déjà sàmmal leen seen alal sàmmal leen seen der naka noonu tamit ngeen di yàkkalante boo amee loolu mën a yàkkal nga yàkkal leen boo amee xew wala dara nga invité leen ñoom tamit ñu invité la loolu moom mooy àq yi nga xam ne mooy mooy yi nga xam ne day rafetal dëkkandoo mais pas kenn ku ci nekk ñeen dëkk ci même koñ bi doo leen faalante doo leen xoolante seen yoon nekkul ci kenn ku romb sa moroom di ko xoolee di ko xool ba romb kenn du nuyu sa moroom loolu rafetul ci ñoo xam ne ñoo bokk benn koñ di yeewandoo ci benn koñ n'est-ce pas donc loolu jar a xel waxuma la nag ñoo xam ne ñooy bokk benn sàppe te duñu sax mos a nuyoo da ngay ñoo xam ne ñu ngi bokk même sàppe bokk koñ bi di bokk sàppe yi ba paree bu ñu rombantee ñu faalante loolu ban façon diine la loolu fan nañ ko tibbee ci lislaam loolu moom lépp la lu nekk la ba mu des lislaam lu nekk la ba mu des lislaam donc loolu lu jar a bàyyi xel la ci ak dëkkandoo naka noonu tamit naka nañ war a doxalee ak dëkkandoo beneen partie bi tamit yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel mu am ay teggin yoo xam dañ ko war am moom mooy teggin sa diggante yow ak sa gan boo amee gan bul ko soññ gan dafa nekk loo xam ne lu am solo la boo xoolee ki njëkk ganale ci kaw suuf boo xoolee Seydina Ibrahima alayhi salaam nga xam ne moom bu mu ñëwee gars yi bu ñu ñëwee daf leen daf leen ganale tegal leen yëkk bu ndaw ma xooma tegal leen nag bu ndaw boo xam ne ne moom la rey teg leen ci saa si te ñu xamu leen sax maanaam dañoo ñëw toog rek mu dem préparer benn yëkk loo xam ne ne salim donc loolu xoolal lu rafet loolu nga xam ne ne moom moom la suñu maam Ibrahima alayhi salaam def la xam ne ne ba léegi nit ñi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo ngi koy toppandoo donc loolu dafa war ci ñëpp moo tax yonent saa sam wax ne bu fekkee da ngaa am gan na nga ko teral loolu bokk na ci li nga xam ne yéen saa soxna da doon wax naka noonu tamit képp koo xam ne ne da gëm yàlla gëm bis pénc na ngay teral sa sa gante loolu muttafaqun alayhi la maanaam euh, muttafaqun alayhi moom mooy imam Bukhari ak imam Muslim solo noonu nañ ko donc loolu jara bàyyi xel la ci diggante yow ak sa gan tamit bul nay bul fa nekk naan temps yi kat euh, yàpp bëreetul wala temps yàpp sax. Euh, yàpp bu bëri baaxul alors que moom commencé gu sax lekk yàpp ku la wax ne day lekk yàpp lu bëri est-ce que nekkul ne jën sax la ëpp lu muy dundee mais nga nekk naan ko yàpp yu bari baaxul ak temps yi ceeb bi baaxul ak dangay que pour bañ ko toggal wala genre yooyu loolu rafetul ci ki nga xam ne ne dañuy ñëw di ko seet si waaye tamit kii dem di seeti dafa am ay teggin yoo xam ne moom nga war a amee boo fa demee lu olof naan gën di yeewi béy dañ lay yaatalal waaye yow tamit bul ci abusé waaye fexeel ba xam ne yom saa sam sunna bu mu wax moom mooy ne ñetti jour la nga ne la yem yem ci maanaam même bu fekkee da ngaa continuer nit ki bu fekkee mooyam demeewul noonu lu fa am rek na nga na ko bokk ak moom waaye bul fa nekk di xas baay ba mu dem nga naan ñii lii la ñuy joxe et cetera ni nga leen fekkee ñoom noonu nañ la mën a terale te nit ki boo ko xeebalee teraangam xeebal nga ko xeebul nga ko cëram donc loolu lu jar a bàyyi xel la booy dem di seeti nit tamit boo nekkee gan bàyyil xel ne lii sunna ci ngan mooy ñetti jours ñetti fan moom mooy na ci gan après ñetti jours yi nag nit ki ki nga ganal ki ki ki ganale moom libre na am na choix bu libre ci soit mu continuer nganale bi wala mu yamale la ak waa kër gi maanaam ci wàllum li mu fiy dundee et cetera lépp lu nit ñi di dundee après mu bàyyi la ngay dundee ak loolu su fekkee dooleem. may na ko nag bu ko neexee mu continuer ci ni mu doon ni mu doon ganalee waaye nag lool nag moom mooy mooy na donc boo amee gan teral ko waaye bul ko soññ kañ ngay ñibbi mu ñëw toog rek nga ne ko ah waaye yow kañ nga nar a ñibbeeg yooyu noonu déedéet yooyu danga ko war a moytu boo toogeek moom ci ndab tamit fexeel ba nga xam ne da koy ëffal ëffal mooy lan mooy comme mbayeen yi nga xam ne yooyu dañ koy bëgg buñ buñ tegee euh, ñu tegee yàpp mbayeen nii boo xoolee ñu bëgguñ ko leen dagal parce que boo leen dagalee day dañuy xeet li nga leen dagal de ce fait da leen fuusal yàpp bi ñu dagal seen bopp su ko defee ñoom dinañ ci am ay dag dag ay ay dog yu baax waaw mun a dank-dank yu baax mbayee ni ñoom noonu lañ mel donc loolu la noonu nga war a doxalee nag ak ñëpp ëffal ko yàpp bi bàyyi ko mu mu mu utiliser comme moom ni mu bëggee naka noonu tamit boo demee ba suur sax mais moom mu ngi toog bul jug parce que mun nga jug mu xaw a am kersa ba jugaale parce que day bañ ñu ne gan bi kat euh, dafa bëgg na lekk wala yu demee noonu donc loolu jar bàyyi xel la ne boo tooy ak ak moom del del fexe di ko wéttali ba nga xam ne ne yow sax mu jël ci bool bi ba keroog muy jug yow nga doog a teggi teggi bool bi donc loolu jar a bàyyi xel la euh, ci bunt boobu ci respecté tamit ki nga xam ne moo ñëw euh, di la ganale fexe ba tamit ganale ko moom tamit donc loolu jar a bàyyi xel la am na beneen point boo xam ne ne ci wàllum teggin ba pare ñoo xam ne da nga war a am teggin sa diggante ak ñoom bokk na ci borom xam-xam yi naka noonu tamit nitu yàlla yi borom xam-xam yi da nga war a am ci ñoom teggin bu mat sëkk parce que ñoom ci boppam ñooy dono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala dono yonent yi ci boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax euh, al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi kon loolu boo ko déggee dañ ciy comprendre ne luy borom xam-xam yi yanu dafa diis lu borom xam-xam yi euh, digérer dafa diis. ndax lan ndax ndono yonent la ndaw ndono nubuwa la donc loolu jara baaxel te mooy xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy jël di ko tasaare kon ñooñu boo leen gisee da nga leen war a wekk da nga leen war a xool dafa mel ne dañoo remplacer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf nga leen di gis donc moo tax nga gis ñuy jàngale di yeete di waxtaan di daawa nit ñi ñooñu boo leen gisee waroo leen xoolee comme ay comme ñenn ñii nuñ koy defee ay ñii ay mbaba daara nañ ñii dañoo tardé lii dafa révolu ñii xanaa amuñ leneen lu ñu war a def lu lii topp lii rek naan ay diine bi nee na et cetera déedéet wala ay seen sikkim yi buñ ko wat ak genre yooyu déedéet boo gisee ay borom xam-xam yow li la war sa diggante ak ñoom moom mooy nga teral leen nga am ci ñoom ay teggin teggin yi nga xam ne moom nga war a doxali sa diggante yow ak borom xam-xam bi lu siiw la ñu xam la bokk na ci nga fexe ba nga xam ne ne li nga xam ne moom lay sol lu ci mel ne euh, maxana bi lu ci mel ne kurus bi muy yor et cetera nga fexe ne doo ko jël tànk joxu ci ndigal place bu muy toog di def dërs tamit bul dem rek toog fa te joxula ci joxula ci ndigal bu fekkee tamit da ngay jàng fexeel ba nga xam ne ne bul distraire toogal toogin boo xam ne bu la xoolee day xam ne ne kii fi mu ne pare na pour déglu lépp lu may jàngale moo tax nga gis imam Malik Euh, rigueur boobu mu amoon mu tax mu am ay ndongo yoo xam ne ne dañoo dëgëroon ba mu fi jugee sax ñoom ci boppam ñu tasaare xam-xamu imaam imaam Malik rahimahullah war nga gis doon toog daaw woon nangu kuy poser yenn question yoo xam ne ne amul solo wala nangu yenn yi ci ay jotaayam parce que bu boobaa ci saa si la koy lijjanti ci saa si la koy la koy lijjanti ndax genre yooyu noonu kon boo ko gisee da nga leen war a wormaal da nga leen war a teg ci kaw boo amee ay cadeau ay hadiyu nga yóon nga jox leen rien que pour lan pour gën a euh, rafetal sa diggante ak ñoom parce que lan nga jublu ci teral leen jublu ci euh, wormal leen ngir xam-xam bi nekk ci seen dënn comme imam Chafi'i lu muy wax alimi maa yi xëy suma yi kumtu yan yat ba mu nii n'est-ce donc loolu lu jara lu jara bàyyi xel la ci bunt boobu mu ne sama xam-xam mu ngi ci man fu ma mënti nekk rek day ànd ak man maanaam mu samay dënn foo mënti nekk rek day ànd ak man kon loolu xam-xam boobu ñoom ñuy àndal à chaque fois loolu ngay teral loolu ngay respecté mais pas jëmm ji rek rek rek rek rek mais jëmm ji ak li nekk ci biir jëmm bi moom ngay teral moo tax nga gis mag ñi ñoom noonu lañ meloon bu ñu gisee benn gone boo xam ne ne dafa mokkaloon alxuraan duñ ko xoolee comme gone waaye dañ koy xoolee comme mag boo xam ne wala gone boo xam ne ne dafa am lu nekk ci dëndam lu tedd tax bañ ko loon teral donc loolu nag lu jar a delloo si waat la lu jar xoolaat la lu jar a euh, royaat la ci mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi naka noonu tamit nitu yàlla yi nitu yàlla yi tamit suñu jamono ji da ngay gis dañ am na ñu bëri ñoo xam ne ne yàlla daf leen nattoo wala bor nit yàlla yi yàlla daf leen nattoo ay nit yoo xam ne ñoo fi nekk au lieu que ñu respecté nit yàlla waaye fii na ñuy nekk di def ay colloque di bind ay téere ñii di di di xas fii ñii di di di tuumal fii ñii di raconter ay histoire yoo xam ne dara du ci dëgg te lépp dañ koy jël di ko bocci ci deru euh, nitu yàlla ñooñu nag damay ragal ne dama yaakaar ne yàlla dafa tàmbali fii seen alak bu mu leen war a alak àllaaxira ndax rien jël sa làmmiñ ak sa bindukaay di ko bocc ci kaw ay walliw ay nitu yàlla yoo xam ne ni koo ci xalaat naan nax ni kii nitu yàlla la sa xel dana la moytul li ngay xalaat bu boobaa xamal na yaa ngi gasal sa bopp loo xam ne ne sa safara jahannam boo moytul doo ci mucc ndax lan ndax suñu boroom tabaraka wa taala dafa wax ne inna allaha xaala man aada lii waliyan faxat azartahu bil bil xarb képp koo xam ne danga maa noonoo sama benn walliw sama benn boroom xam-xam man ci boppam mën maa la déclarer guerre te yàlla ku mu déclarer guerre xamal ne dalay alak yow munoo gañe yàgg yàlla ngeen di war a guerre nga xalaat gañe loolu munta am ndax dalay alak kon loolu lu jar a bàyyi xel la xadis la boo xam ne ne imam yi moom la solo kon dañoo lu ñu war a war lu ñu war lu ñu war ci suñu diggante ak ñooñu noonu te mooy borom xam-xam yi ak nitu yàlla yi mooy lan mooy al ixtiraam moom mooy wormal leen moom mooy jox leen cër moom mooy respecté leen teg leen feleen fi leen yàlla teg loolu moo ñu war suñu diggante ak ñoom mais pas bu ñu waxee ne diw comme ñenn ñi bu ñu nee diw wàlliw la mu ne waa may gisuma ci moom wilaaya naka ngoo koy gisee ndax wilaaya da nga koy bind ci ci ci jëf ba nga xam ne foo ko gisee rek gis ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla la boo xam ne ne moom ci boppam dañ ko dëggal ci kaw suuf dëggal ko ci ci asamaan ndax est-ce que dañoo bindoon ci jiwam ne euh, moom mooy moom mooy moom mooy rasulullah xëy na amoon amoon na topp tampon bi ci ginnaaw bi mais est-ce que bindoon nañ ko ci jéem la xam ku tasanteeg moom rek ne am yaqin ne moom la déedéet moo taxoon nga gisoon ah waa Xuraysh tamit doon ko xeeb naan yàqulu tamaam wa si fil aswaaq naan kii seen yonent bi yéeme de yéen yonent boo xam ne ne day dox ci kaw ci ci kaw suuf di dem ci marché yi ah di lekk ci ñam yi kii ab yonent la tax te bachariya boobu nañ doon gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit nit nitu yàlla yi bachariya boobu mooy nax ñu bëri ñu gis ne ne kii nit la comme man ah. amul benn différence nit la comme man day lekk may lekk muy naan may naan waaw y a différence alors que différence am na différence am na yàlla yamalewul kenn fii ci àdduna bi de ak ñuy wax naan ñëpp a yem du dëgg de ñëpp a yem loolu moom du dëgg parce que boo xoolee àdduna bi nu mu séddalikoo xam nga ne milliardaire bi yàlla moo séddale milliardaire bi ak koo xam ne ne day xëy saa yu xëy deux mille cinq cent rek lay am ndax yàlla séddalewul ndax ñoom ñaan ñoo yem situation yemuñ si situation ndax kon bu fekkee ñëpp a yem yow ak yéefar bi yéen a yem yemoo leen abadan kon différence boobu am na différence boobu nag ci ngëm ne comme bu ñu nangoo ne ngëm yàlla day yokk di yokk di yokk kon am na ñoo xam ne ñoo ëpp ngëm yàlla par rapport ak ak ñeneen yi kon loolu day wane ne wilaaye moom ala budda mu mu am donc wax na ñëpp a yem moom loolu ay wax bu wax wax bu yàqu la loolu wax la boo xam ne ne daanaka jarta bàyyi xel ndaxte ñëpp xam nañ ne loolu du du lu ñuy bàyyi xel donc kon ñooñu la xam ne ne yàlla daf leen terale li nga xam ne moom mooy xam-xam ak ñi nga xam dañ leen terale tamit en même temps en même temps euh, wilaaya ndax yàlla tamit mën na jël benn borom xam-xam ndax comme lu imaam Ahmad wax ñii borom xam-xam yii bu ñu nekkul ay walliw kon yàlla amul ci kaw suuf walliw loolu rek lay signifier donc bu ñu waxee loolu noonu amul séddali amul différence ni ñi ñooy borom xam-xam waaye du ñu walliw ñii ñooy ay walliw mais du ñu ay borom xam-xam donc dafa am cohésion boo xam ne day nekk seen i seen diggante xëy na ñee dañuy am beneen cër boo xam ne yàlla daf leen koy cërale te mooy xam-xam bi en plus de wilaya bi te loolu moom mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam moo tax nga gis ci wàllum fóon loxo masalawu fóon loxo boo leen gisee ñoom da nga war a Euh, mu la neexee nga barkeelu ci li nga xam ne moom lañ lay jox bu la neexee tamit nga tawasul ci li nga xam ne moom mooy mooy li nga xam ne moom lañ lay jox naka noonu tamit moo tax nga gis buñ la ñaanalee tëflit yooyu ñu ñu lay tëfli tamit loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo xoolee saxaaba yi ñoom dañ doon xëccoo li nga xam ne moom mooy tëflitam ndax barkeelu li nga xam ne moom mooy ci euh, barke bi bi mu nekk te ay xista yu bëri yoo xam ne ne dañuy gis ñu bëri lu bëri dañuy barkeelu ci li nga xam ne moo jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu taxu ñoo jóg ala kulli xaal naka noonu tamit boo leen gisee mën nga jël seen loxo leen wala nga fóon leen ci seen lex ndax lan ndax teral ki nga xam ne moom la moom la doon teral wilaaya bi nekk ci moom teral xam-xam bi nekk ci moom waaye nag moo tax boroom xam-xam yi di wax ne loolu nag duñ ko defal dudul koo xam ne ne gis nañ ci moom ak sellte gis neen ci moom loo xam ne ne jar na ñu ñu defal la ko waaye duñ fekk benn fujjaar benn kàccoor boo xam ne ne moom moo ngi fii di def lu ko neex ñuy xëy di ko defaral kon ñetti yooyu yu jar a bàyyi xel la ak dëkkandoo naka noonu tamit sa gan sa gan da ko war a teral naka noonu tamit teral borom xam-xam yi ak nitu yàlla yi fu ñu leen mën a fu ñu leen mën a fekk jox leen worma jox leen cër te te te te te te sàkk ci ñoom